mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futur Média ñi ngi dellu am mbégte bu yaatu di ànd ak yéen ci seen émission Faram Facce euh, gannaaw bañ leen nuyoo ñu am mbégte wax dëgg yàlla ni mu ko waxee euh, ci di dellu si saa su ne ci àllarba en direct ak émission bi nga xam ni euh, li ko yëkkati mooy waxtaane tolluwaayu réew mi Faram Facce ko ak suñu ay gan loolu mooy li sabab Faram télévision Futur Média indil leen ko. Euh, tey nag ñu am ci gan muy jëwriñ ji ñu denk wàllu njàng mi muy maire ca Ndioum Cheikh Oumar Anne la ñuy recevoir mbokk yi tey euh, ci seen émission Faram Facce euh, ñu dellu am mbégte wax dëgg yàlla di ko recevoir ci plateau bi ñu ngi lay nuyu ministre. waaw maa ngi lay fay Pape Ngagne di nuyu spectateur téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di nuyu waa Sénégal di ndokkeel waa télévision Futur Média mhm. di kontaan ci ñëw fii jàkkaarloo ak yow. sa émission waxtaan ak euh, sénégalais yi. Mhm. mu di ware saa nekk maa ngi voilà. di gërëm ñëpp monsieur le ministre jaar nga assemblée nationale ci commission yi ci plénière bi voté nañu sa budget euh, mu nekk budget boo xam ni mën nañu jàpp nag ni mooy budget bi gën a am solo mën nañ ko jàpp euh, ci gouvernement bu Sénégal li ko sabab bokk na ci njàng mi nga xam ni jox nañ ko jox nañ ko gëdd lool. Euh, ñu natal la daanaka lu toll ci lu jege huit cent euh, presque milliards euh, sept cent et quelques milliards ñu votel la ko ban gis-gis nga am ci ci koppar yooyu nga xam ni teg nañ ko ci sa loxo mu jëm ci ñi nga xam ni ñoom ñooy njàng mi ak njàngale mi ak njàngaleen mi ak lépp li nga xam ne moom moo ci aju. waa Pape jërëjëf di nuyu di sant rek mais question bi nga posé defe naa loolu am lu am solo la. parce que njàngale euh, mooy li nga xam ne moom mooy euh, defar euh, avenir mooy defar avenir réew parce que am nañu wax ne boo bëggee sa réew jëm kanam da ngay jàngal yar say doom xale yi donc njàngale tey jàpp nañ ko fépp ci àdduna bi ne investissement la mm-hmm. bu nga xam ne day rentable mm-hmm. Euh, donc euh, ba dem na sax ci boo demee ci organisation yi nga xam ne ñoom la ñu bokk ak réew yëpp ñoom dañuy fixer ne budget éducation na àgg euh, vingt pour cent budget bi mbaa vingt cinq pour cent budget bi ay critères la ñoom loolu lu am solo la donc éducation dafa di nga xam ne lu am solo donc boo ñëwee fii Sénégal boo gisee ni mu laloo di nga xam ne lu am solo la parce que fi ñu àgg ñun defe naa bariwul réew mu nga xam ne réew mu amul doole la euh, mhm. développé bu am mhm. niveau de d' investissement bi ñu am ci jàng ci jàngale mhm. président Macky Sall ba mu ñëwee ba léegi defe naa budget bi daf ko yokk ci ba multiplier ko par deux cinquante mais bu weesoo loolu li mu investir ci éducation euh, ba mu ñëwee ba léegi mot na euh, wal wax dëgg fa yàlla li ëpp na li nga xam ne 1960 ba 1900 ba 2012. li ñuy investir ci njàngale mi. d'accord budget bi nee nga budget bu rëy la. waaw loolu budget bu rëy la te euh, ci biir Sénégal. Euh, mais budget la bu nga xam ne war nañ koo gën a mën a yokk te même président daf koy yokk tout le temps parce que li ñuy voté assemblée jox jageel ñu ko bokk na tamit. Mhm. ak yeneen projet yi nga xam ne. cest à bu bu ren bi sax moo ëpp bu daaw bi. waaw bu ren bi moom dafa ëpp daaw bi. lu mhm. lu bëri. parce mhm. que ëpp na ko lu mot ci téeméeri milliard ak juróom-ñaar fukk ak ñaar. Mhm. ni ñu mew yokko dafa am solo parce que boo bool am na ministère yoo xam ne yu mën nañ jël ministère yu nga xam ne ñaa eh, fukk ministère bu ñu dajalee seen budget mbaa juróom ministère yu yu mag suñu dajalee seen budget du egg foofu mm-hmm. loolu nag décision président de la république te xam ne ñu ne at bii ñu génn président dafa jàpp régler benn problème bu nga xam ne bu ngan la woon ci suñu secteur de mm-hmm. mooy la revalorisation de la fonction enseignante bu nga mm-hmm. xam ne problème la woon la yàq la woon bu nekk ci tànk bi dindi na yax bi loolu lu am importance la ñu koy saluer maintenant financement jàngalee jàng njàng mi tey mooy problématique man bi ma jàpp. Mm-hmm. ak bi àdduna bi yëpp jàpp parce que dégg nga ne fële boobu euh, période bële ci mois de euh, septembre président demoon na fi Nations Unies. Mm-hmm. sur le euh, benn mm-hmm. forum mondial. pour sur le éducation. bu nga xam ne système de Nations Unies pour wane ne tey fi ñu toll nii njàng mi dañ ko war a seetaat mais seet ci bokk ci seetaat yi war nañ ñëw yokk financement njàngale. d' accord ëpp na. d'accord ëpp na li ñu soxla ëpp na doole gouvernement. d'accord alors monsieur le ministre président de la république am ci yow confiance mais jàngalekat yi bi ñu nee Cheikh Omar Anne la ñu jox département bi euh, mais ñu ñu ci bari. amuñ ci yow confiance. Ah. waaw jàpp nañu ne daanaka noonu lañ la teertoo ñu ci bari xaw ma nag ginnaaw bi ndax mujj nga euh, fexe ba de rataxal seen diggante waaye loolu lañ la teertoo maanaam amuñ ci yow kóolute amuñ ci yow confiance ñi jàpp nañ ni mënoo yor njàng mi mënoo ko mënoo ko doxal ci ni nga xam ne noonu lañ ko yaakaare yenn syndicalistes yi noonu lañ jàppee. waaw xam nga xam nga. Euh, man jàppewuma ko noonu. Mhm. parce que. bi may ñëw éducation nationale bi may ñëw enseignement supérieur bu wax ji boobu la gënoon bari bi ma fay jógee bilan bi dem na fu ma toog tey. Mhm. gis nañ ne foofu liggéey naa ko ndax président Macky Sall secteur bi mu jox li mu gëdd bi mu jox euh, si euh, enseignement secteur u enseignement bi def yëpp du ko jox ku mu wóoluwul maa ko ko àttanul. ah non moom mën na la wóolu. mais bu lay dénk ay bu dee non. c'est-à-dire moom mu wóolu la am na solo. xam nga wax nga loolu mais jàngalekat yi wóolu la itam. lu am solo la da ngay déglu si da ngay déglu si affaire bi xam nga man jàngalekat laa. waaw. syndicaliste laa. waaw. mun wax ne jàngalekat laa bu yàgg ba léegi mun naa wax tamit ne syndicaliste laa pratiquement ba ma nekkee élève donc euh, am na wax yu nga xam ne waxu dànqaafu la ba may ñëw ñoom dànqaafu nañu mm-hmm. mais man tamit li ma dégg bu ñu toogee maak ñoom li ñu wax dañ may wax li nga def enseignement supérieur defal lu mel noonu fii. ah bon waaw loolu laa wax. te fi ñu toll nii gis nga booy def euh, booy évaluer nit euh, ku nekk mun na wax ah, politique tey Sénégal da ngay gis nit def dara ñu ne la non dañuy teg sa bilan teg fële. Mhm. comme ni ñuy def ak président Macky ne bilan bi duñ ci wax mais ñu wax attaqué. Mhm. mais tey defe naa ci njàngale mi ci man damaa commencé ci njàngale mu kawe mi sama bilan gis nañ sama bilan ñun ñi gis nañ ko secteur bi gis nañ ko gouvernement bi ci biir ki ma jox kóolute mhm. nga xam ne moom mooy wóolu ministre moom mooy def ministre parce que moom la réew mi jox kàttan jox ko suffrage universel ne ko yow tout à fait yaay fal ministre mhm. moo ma fal mhm. renouveler ma confiance am ministère de l'enseignement supérieur ci ñaari gouvernement yu weesu ak bi ma njëkkee tabb ma ñëw mu jox ma éducation nationale nga xam ne tey mooy base bi mooy li gën a yaatu. jox ma kóolute may liggéey foofu euh, damay wax ne kuy dem ca bàkk kuy dem ca làmba doo bàkk parce que enjeu bi du ma ñëw ne mën naa parce que foofu non bëri bu rëy fa nekk te bëri bi moom. ça ci la dépendre avenir du Sénégal xam dellu si. parce que am na ci ay ma gën a bëgg li ma gënoon bëgg ci débat bi Pape. mooy nga nga dem a Cheikh Oumar. gars yi wow non teeru nañ la parce que lii nga def fële baaxul mbaa lii mënoo ko mbaa lii mënoo ko mbaa euh, sa expérience jëmewu la fo euh, foofu mbaa vraiment. Euh, ñi fi nekkoon non loolu ñoom wax nañ ko. loolu ñoom wax nañ ko boo amee loo ci. non non loolu ñoom syndicalistes yi. ni ñu ko waxee noonu lañ ko waxee. maanaam compétent wuloo pour jiite département boobu. Eh, amuñ ci yow yaakaar mais bi nga ñëwee loolu la ñu wax. waaw Pape xam nga xam nga Pape dañuy wax rek. waa xam nga nit du saabu du fóot boppam. Mm-hmm. man jàngale naa université Dakar boobu awma guma 30 ans. Mm-hmm. may jàngale ci école d' ingénieur bi gën a ngar ci Sénégal. Mm-hmm. ma jàngandoog ay sénégalais fii biir Sénégal jàng diplôme ingénieur c'est spécialité bu nga xam ne kenn xeebu ko ci spécialité ingénieur ku nekk koy def d'accord mais loolu c'est important rek wax la monsieur le ministre li nga bëgg ngay bëgg wax expliquer comprendre naa ko cest à xam nga man waxuloo ak man ñoom ngay mais li ma bëgg nga wax waaw déglu rek non non monsieur le ministre mais enseignement supérieur du Sénégal quand même non ministre ko waaw ah, d' accord mais. ba ma ko gérer quand même fii damay damay wax rek. defe naa Pape dellu ci bilan mais monsieur le ministre. Pape bu non mais monsieur le ministre. su ma la toppee su ma la toppee ni non non nga bëgg defee émission bi mooy doo ma déglu da nga bëgg a da nga bëgg a waaxu ci li ngay bëgg a xam nga loolu baaxul aussi déglu ma rek ñu waxtaan alors. éducation nationale dinañ ci dellu si ay préavis ñu ngi ci sa table ñi nga xam ni ñoom amuñ ci yow yaakaar ëllëg mën n leen atte yor nga seen budget yaa ngi war a doxal loolu ci kanam dina leer li nga wax aussi ci enseignement supérieur. bi ngay nekk enseignement supérieur yàlla def na ñëw nga fii toog nga wax def nañ émission wax nga ci li ngay wax mais ci leneen laa bëgg ñu ñëw ci s'il vous plaît et c'est important pour man assemblée nationale. jàpp waaw Pape mais. doo jàllee noonu. ok allez-y. man ngay poser question man maay tontu. d'accord allez-y waaw maa lay poser question bopp. wax d'accord allez-y d'accord d'accord allez-y d'accord dégg. xam nga da ngay noppi tuuti bu ma waxee ba pare nga doon jëlaat li ma wax. kenn du dem ci euh, ca làmb ja di bàkku bëri nag boo nee champion dem di bëri ki nga xam ne moo gën a tuutile dina la wax ne maa lay gañe mbaa dina la ne xamoo dara loolu yëpp ci mbër la mais ñi doon wax ba may dem enseignement supérieur bis bu jot ñu wax ba ma fay jógee déggoo leen ñu wax ba ma fay jógee déggoo leen ñu wax te dootuñu wax éducation nationale maa ngi dem man jàpp naa syndicalistes yi am na lu ñu wax dañoo ñëw li ñu wax nga xam ne dañoo représentatif te du ñuy politicien dañoo ne président am na lu mu defal enseignement su euh, éducation nationale signé nañu ay accord commencé nañ ko man bu ma ñëwee naa fexe que accord yooyu ñu appliqué ko ñu ne ma ñoom dañoo bëgg ñu dialoguer muy ma ne leen loolu sama lettre de mission bi ma président de la république bokk jox loolu moom lañ ci bind naa dialoguer bu ma ñëwee dinaa établir les bases ñu dialogue maintenant syndicat yëpp bokk nag fii Sénégal syndicat dafa am am ay syndicat yu représentatif am ay syndicat yu nga xam ne am nañu seen démarche mais syndicat yëpp a yem ku ci nekk sa démarche bopp nga am am say instance de direction mhm. nga am sa ligne syndicale d'accord mais man ligne bi ma jox mooy liggéeyal Sénégal. Mhm. sur euh, ci gouvernement premier ministre Amadou Ba. Mhm. nga xam ne confiance bi ñu am président de la république ci régime Sénégal nga xam ne moom mooy déterminer nan la ñuy liggéey réew mi. Mhm. moom mooy def bilan ne ma naa dem éducation nationale. d' accord xam nga monsieur le ministre. consulté wu ma <coughs> su ma la bàyyee émission bi du du baax sax ci yow. xam nga loolu déedéet. non non je vous en prie xam nga su wax léegi di dem ci làmb ji di. di dem ci làmb ji bàkku mais soo bëggee taxaw di bàkk sa bopp si jëm suba non non jëm ba léegi damay principe rek laay posé. waaw mais mais mais c' est li ngay wax leer na léegi baal ma ñu dem ci na leer la ne fi ñu toll nii li ñuy li kon leer na la ne ñi ngay wax ne li ñuy wax dañ maa dànkaafu nee naa la man maa ngi jëm ca làmb ja di bëri ji am palmarès bu nga xam ne mun naa ci yaakaar ne ci la ki ma fal te moom dong mooy fal ginnaaw yàlla tey ci Sénégal wóolu na ma teg ma fa. d'accord ci secteur bu nga xam ne teg na ko. ci secteur yi gën a mem. mais mais ah. mais monsieur le ministre. palmarès palmarès boobu lan nga ciy def euh, off nag. par euh. exemple audit bi ñu def. nga xam ni tout le temps daf lay dapp même ci assemblée nationale ci plénière yi wax nañu ci sa à dire palmarès boobu lan nga ciy def audit boobu nga xam ni def nañ ko ba épinglé la ci xam nga xam nga pap épinglé waaw épinglé wax na épinglé ga dañ lay jàpp audit la jàpp la xam nga affaire boobu man dama laa ne amul fu ma op of nag épinglé dafa am benn nit parce que responsable of nag la mu dem ci rajo bi nem Cheikhou Matane directeur du COUD maire de Ndioum audité wul maire wane ne Ndioum laa dëkk wane ne politicien laa waaw wax li muy wax site mhm. naa ko ñu bind livre mu dem joxe ay wax ñu wax ay livre yu nga xam ne livre yi lu nekk lañ ci wax mu yóbbu ko tribunal mhm. ne leen nañ ñëw fekk ne man ministre laa munoon naa bañ a dem parce que kenn mënul dal ci man mu yóbbu ko tribunal ñu dem ñu juger leen def ko délibéré bisu délibéré bi nga xam ne dañoo war a ñëw nit lii la sanction bi juge bi woo leen ñoom ne leen eh man xool naa dossier bi du ma délibéré dama koy renvoyer parce que amu leen preuve yu ngeen indi ana seeni preuve indiwaat leen ko indiwuñu preuve ki ma tuumaaloon ñu ne ko na ñëw mu ne moom du ñëw waneen dafa maa tuumaal du fu ñëw parce que moom am na immunité immunité bi mooy lan bu nekkee président nag boo nekkee président nag mhm. boo fa nekkee lu la neex nga def. Mhm. mun nga tooñ mun nga rey nit mun nga def lépp ci biir président mais kenn dara du la ci dal. Mhm. moom moo ko bind. ba pare ne day audité kenn man musuma kenn moo audité kenn musuma ne tontu naa ba ma tontu ci presse bi la ba ma tontu tribunal la ñu jox ma dëkk. ñi ci doon rëy laamin li ci wax kenn waxatu ci. non si. non non non non xam nga ngay wax rek xam nga lu am importance yi sénégalais yi dañ ñoo dégg rek bàyyil ma wax la. problème bi dootuma ci wax xam nga xam nga lan mooy problème bi. dootuloo ci wax mais tout le temps nit ñi di ci wax démb rek bërki démb benn député jàkkaarloo na ak yow. non parce que wax la ci. waaw déglul li ma lay wax. ni la li nga xam ne moom la of nag conclure mooy yow waratuloo sax nekk ministre. Pape dama lay laaj benn question rek mu posé la ci affaire boobu xam nga lan mooy couleur of nag couleur couleur yi mu wane ne moom moo ko moom xam nga yaa ngay couleur am est-ce que xam nga ko vert la blanc mauve lan nga bëgg wax ci loolu. mooy couleur Pastef. non <laughs> monsieur le ministre looy wax ni. non déggoo li ma la cest à lan nga bëgg wax ni da nga bëgg wax ni par exemple euh, OFNAC lan nga bëgg wax ci couleur nag mooy couleur Pastef. seetal. ah mais lan lan nga bëgg a wax ci ah, non dama la xam nga man la ne junju. na ci ko am xel. non mais xam nga fii nekk ñu ci. non dama faram fàcce la ñuy def euh, non damay faram fàcce. non voilà mais nekkuñu ci junj. non non déglu rek li ma la wax ci junj monsieur le dañuy wax rek. waaw dama la ne waaw. man xam naa fu mu jógee xam naa fu mu jëm xam naa ni ñoom seen tentative échec na ñu waat ko beneen boor wax naa ko plusieurs fois yow wax naa la ko plusieurs fois li ci kanam lu bët lépp ngi feeñ gis nga euh, fii Sénégal il faut ñu xam ne nit ñi non monsieur le ministre. déglu rek am na ñu nga xam ne. Euh, man nekk nekkuma ci junju de. non junju ma damay. voilà dama bëgg nga expliquer ma rapport OFNAC ak PASTEF. Euh, oui euh, oui non Pape li ma wax. waaw wax naa ko ci. li ma wax lu rëy la boo dee journaliste nga boo demee da nga koy saytuwaat bu fekkee ne lu bees la lu ngay doon di dégg ak situation bi nation tey ni mu demee ak li ñuy tuumalante yenn yéeg ñenn ñeek affaire yooyu ak lu ñu tuumalante woon boobu départ. bi ñu fi génnee ay dossier joxe ko ne diw moo ko wax nit wax ko ñu ne fan la jógee yooyu yëpp fekke nga ko junjuma pour junj ne rek wax kenn xamul li ma wax lu leer nañu la yow comme journaliste la nga yaa ngi dellu si benn débat bu nga xam ne 2016. waaw ah, mais dafa ñëw ci assemblée. non déglu ma wax la rek non assemblée li fa ñëw bari na. waaw dafa ñëw mais. dafa ñëwul benn OFNAC bi dafa ñëw. Ah, non non xam nga man dooma li ma indi fi tey. Mhm. du dàgga santé. Mhm. damay ñëw wax ci Sénégal. Mhm. wax ci éducation nationale. indi nga ma ci débat wax naa la li ci am. wax naa la lu nga xam ne joxe naa la scoop bu nganda ngand bu nga xam ne tey Sénégal bii déglu war nañu xoolaat couleur yooyu ci ay ñaari affaire yu demul benn kon parce que Olof Ndiaye dafa ne ku ñu ku ñu ji lële bu ñu la fekkee ngay seeñoo yaxul liir. ok dafa junjoon naa ko jiiñoon nañu affaire bi mu ngi gën a feeñ. loolu mooy discussion bi ak yow tey loolu da ngay fàcce rek. jëlal émission beneen nga faram loolu bu la neexee na nga woomati bu la neexee nga woomati ak ay spécialistes yu nga xam ne xam nañ leen muy audit ak ay spécialistes yu nga xam ne dañuy def transparence avec spécialiste société civile xam nga affaire bi ba mu amee ak bëri woon wax nee nañ ma fi sax lu nekk lañ wax way jënd nga ñebeeg 4500 alors que man musuma jënd ali du ma jënd du ma jënd produit alimentaire fu tëb ko du ko jënd. fu gis nga ko de fu ñu la waxee wax ñebe. waaw waay mais xam na loolu wala mais ñi ko doon wax. Mm-hmm. tey waxatuñ ko. ba ma leen yóbbee tribunal fi nga xam ne wax am na dootuñu ci wax dootu ci ngaan que réew mi réewu droit mm-hmm. am na maslaa am na ku ci nekk am na gor mm-hmm. lu moomul. xam nga ñi dañ may ne yow bu ñu def tuur politicien nga mais bu ñu la waxee tuuti rek am na yenn bu ñu la waxee rek da ngay da ngay voilà da day dal sa kaw bu baax man leen parce que gor am na lu moomul. te man ngor moomu dugal ci politique. sama politique politique ngor la. te dafa Sénégal ñi fi tekk yëpp ba mu Sénégal amee ba léegi di falu ñi fi falu yëpp politique ngor ngor moo leen dañoo jàpp ne politique ngor la àndul ak fen àndul ak naafeq àndul ak créé àndul ak sosal adversaire bi sa adversaire la dafa bëgg nga bëgg am na lu muy liggéey mën nga ko critiquer mais am na loo xam ne doo ko teg ci ganam am na loo xam ne doo ko saaga am na doo saaga sëriñam doo saaga yaayam doo ko saaga doo wax ne da nga koy rey doo ko ne bu ma la jëlee fii dinaa la tëj kaso mm-hmm. débat boobu taxaw di wax ni nii nañ leen tëj kaso alors bu boo defee dara ñu ne la ñëwal indil say preuve boo amul preuve nga xam ne nguur dafa war a dal sa kaw bu dal sa kaw yow ak say ñoñ yi nga xam ne yéen a ànd loolu mooy seen métier ngeen taxaw wax ne noo waruñu tëj kii waruñu tëj ci alors que Sénégal bis bu jot ñuy tëj ñu def loolu mbaa ñi ngeen di xeexal ngeen di laaj ni leen di tëj kaso. asam bu ñu leen tëjee ngeen ay problème a ngi ab fii yu nga xam ne Sénégal tey dañoo war a delloo si ngor les valeurs.